asalaamaaleykum mbokk yi teel talaata ñaar fukki fana ñaar ci weeru maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukki fana ñaar bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na li ñu ci terate rek wàccandiku moom talaata mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ko ca ñaw ñaanu bis bi yàlla yàlla na nga ma gindi te jubal allahuma hdini wa saddidni allahuma inni asaluka alhuda wa sidaat xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa ci yéen ngëm yàllaam du mat lu dul ne dama ko gënal ay waajuram ak i doomam ak mboolem nit ñëpp xadis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xata akuna axaba min waalidihi wa waladihi